Coco Pulp, un rêve de crème. Pau Pau illumine chaque jour votre peau et vous aide à préserver un teint plus unifié. Pour l'éclat de mon teint, je suis 100% Caro White. Unifie et illumine votre peau. xam ne baax bëgg yaayam bëgguñu di mën def teraanga ci réew mi def naa ne képp kuy roy war na mën a roy ci yow yow jàmbaaru fàkk tëdd bi. ki nga xam ne moom bëggul ku dul yaayam lu baax lay def ci réew mi. mën a may lool alalam di ko boole kenn fa tubarkàlla macha allah tey moom ci biir émission moom rek lañ fi gañ nag di ko wax lu baax di ko waxal lu baax ba keroog émission bi. ah suñ may tudd si télé yi rek di ma may dédicace may seetaan rek mu may woo di nee naa la mbaax alalu yàlla la te xarit ba la koy jox saa su nekk. bu tóor bu Amina Amina mi nga xam ne dafa baax lool. yàlla la yaay xanaa déggoo ci rajo bi man la ñu mel dédicace. bu tóor doo may ndox ma naan. defe naa ni keroog moom wàcce na soirée ba ba mu neex ndaxte la nga ko mayee ci doomu dërëm ndax falaa mel nii tey fii nii ma gën nii moo fi jaaral ba mu baax bul ma wawat nak febar bo xamne du wër ben yoon bul ma wawat damay déglu sama émission bi man lañuy may dédicace télé bi ya yow lan mooy sa problème buñ may may dédicace télé bi ak radio bi rek nga may wo di ma wo di ma botol botoor foo botol botol ay ah, ay way la na dina la ko wax gis nga tal bu yalla tal sanni sa matt mo gën fay ko man mënoo maa fay te do musul Yeah. la bëgg ceeb lan moo xew eh lan moo xew. su bàjjen faala. sama bàjjen faala waaw ci la. moo noppal moo lan. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sama bàjjen faala moo noppal. kulli nafsin saa yi xetul moo bakkan bu ñam dund dina ñam dee allahu akbar ay waay sama bàjjan Falla xam nga nga def da yéeg ci kaw nga solu préparé wu ñu dem ci dëj bi xam naa damay bàyyi ba sarax si dem amul loo koy yàlla rek amul loo koy yàlla. doo ci ndax képp ku fi nekk tey di jooy nga jooy sa bopp moo gën. ndax moom mi dem gis nañ na mu demee demam gi rafet na te yow mi demagul xamuloo fooy demee ak nan ngay demee ak fan la ak naka la xalaatal sa bopp kon jooy yi jar ko nañu xalaat suñu bopp ñun ñu xamul fan la ak kañ la ak naka la. doo ci wéet benn yoon dina la jàppale ba nga xam ne jàppale nga lu jooy ma wuy ma lii bi nga gisoon muy jooy gaañu ak sama papa ñoo bokk benn bàyyi lan dafa rafet rek

When you idée nga ci war a am. day waxtaan si sama yaay bu bari dégg nga. waale. xaaral What? rek. yow. waaw. dama soxla woon. soxla. dama bëgg ñu waxtaan. waxtaanu jàmm. waaw jàmm la. waaw. sama bàjjen soxna Batoor xam nga ko. bien sûr ndeysaan deseetul kenn dama ko yërëm ndeysaan te dafa rafet nag dafa jongama yow danga dem ci dëj di def casting walla ngay xool ku jongama आपको जाऊंगा मांगू léegi yow lu tax nga bàyyi ko Sou sama papa laa ان تكون كنيالا نيوخم زيني منو توم دوم تسمي باب تفو بكو كو شكسي دي سي امبا اسبور تما نيوخم زيني جوناليس نابا دف تسمي باب بنكو وخل لي دوك موسى خلاتا دف يونا يوريك لا ديكو soo ma waxee waaw ma dem waxtaan seeg moom soo waxee déedéet ma bàyyi lépp teg ko ci suuf.

dinaa bëgg takka ñaare ñaareel ñaareelu lan et puis kan moo leen wax ni man bëgg naa ñaareel. waaw maman d'accord na. bii xam nga lu mu doon man bu leen ma fontoo du takk ñaareel andi ko sama kër mu ñëw di ko perturber du ma ko def. ñaareel ah et puis yéen ma wax ni man yor naa xaalis bu ma takkee ñaareel. papa ñëpp xam nañ ni maman mënatul am doom te man damaa bëgg rekk bu góor maman moo te moom d'accord na léegi toi c'est quoi le problème. ay nan laa la war a def. waaw léegi wax ma kan ngeen may may ñaanal waxam. ku nice. dégg sama bàjjen soxna. soxna man sa bàjjen soxna batoot mi ñu jóge ci ci ci ci dëjëm léegi moom nga ma bëgg a xaw ma lan la waaye daf ma neex. biige biige xam nga lu mu doon sa bàjjen ba doon xamal lu ma dara xamal lu ma dara et puis dama koy gëj a gis trop sax bu ma ko fi takk nag andi ko sama kër mu ñëw indil ma fi ay problème et puis man taluma di wër di doxaan pour xam nit ki mooy kan pour mën ko takk duma ko def duma ko defan voilà eh papa ngir yàlla xanaa dangaa ma sukkal sëñ sa nga de. yow gis naa la. mun naa la maa ngi si jàmm maa ngi si jàmm waaw papa la. papa la. waaw. balaa soxla woon. waa jàmm la. jàmm la kay. Seydou Mère Wane lu xew a tey. déggoo ma coono waaye maa ko teg sama bopp. bisimilah. merci beaucoup merci beaucoup merci. kontaan naa trop nag. ci euh, nag xam naa ni man awma toogaay. Ah. dafa am benn proposition bu ma la bëggoon def. ban proposition. proposition bi mooy. Euh, dama la bëggoon takk ñaareel. takk ñaareel. loolu daal mooy sama bëgg-bëgg. yow mii nii Marlo takk ma man ñaareel. Awa Zor du ma commandant. papa la sama papa laa bëgg a takkal ñaareel. Ba sa yaay na. loolu ndax na xanaa dangaa xiif. ah déet damay bañ ko ma sotti ndox mu uh, kii uh, diwlin bu tàng de soo demate man sama taxi bii laa tal. yow ni nga tapetee ne t'en fais pas pour ça. sama yaay d'accord naka jékki ma xam ne bët yi ma doon xoolee. dooy bëtu neen <laughs> ay bëtu mbëggeel la. waaye nag yow yaay ñaan te yaay maye. koo bëgg bëgg na la. ah bëgg de yëg koy fay. suma doom biige moo ma topp solol ma tongal mu wit ne daal faw ma takk dañ ñaareel <laughs> loolu amul problème mais ba yaayam yëg na ko yaayam nag ànd na ci mais comme yàlla dafa dogal ni bi sa waajur bu jigéen làkkoo yàggul dama bëgg rek ñu def ko lu lu simple ñu def ko très rapidement lu gaaw nag voilà loolu daal mooy sama souhait ci yow nga baal ma de masuma xew koñ bi ma dëkk dama fay bari ay noon yu man a wax il faut nga may ma deux mois ma génn fi ma dëkk dem wuti feneen fi ma dëkk pour mën a célébrer sama mariage bi loolu tamit soxna Batoor loo nga war mais pas sama yaay yëg na loo. su ko yëgee nag. dama xam ne bu ko yëgee du si mës a ànd. na nga mën a duggee si famille bi nga xam ne nii ñeme sëriñ moo tax ñu bàyyi leen fii. yaay booy maa ngi jégalu bu baax ndax dama jàpp ni comme mbokk la te aussi mu ngi ci ay difficulté su ma ko defee di ci kontaan loolu rek moo tax ma def ko. Marlo mbokk lan est-ce que soxna bëtoon lu ko lay. xamuma ko nag waaye dama jàpp ni jouram moo ñu woon rek te aussi ku ci nekk ci ñun yàlla rek moo yor sa dafa amoon sa yaayam koy takkal jox ko suppu kànja su suppu kànja boobu suppu kànja boobu tey moo ko yóbbu àllaaxira maandoo yu yaa fi xana yu da ngay xaru. yow bi nga foo nekkoon xana la ba son ci man tey jàngiwuma de man dal sama papa la bëgg a takka ñaareel. takka sa papa ñaare bi gis soog nga wax ne nga ñeme nga ko. lan laa ciy ragal sama papa nangu na te sama yaay aussi d'accord na man daal sama benn bàjjan laa ko bëgg a may. est-ce que xam nga yaa ngi daas paaka bi lay rendi. yow fan nga mësee gis ku def lu baax di am lu bon. bàyyi sa xel bi ngay fooyee baax gañe bon si film yi rek lañ koy gis dans la vraie vie le mal gagne toujours. jaan moom kenn du ko nàmpal boo ko nàmpalee rek dalay màtt. en tout cas daal fii ku def lu baax am lu baax boo defee leneen am leneen. Ken terewul la def lu baax mais nga def lu baax ci sa pas ñeneen ñi mais temps. Il y a un peu de temps.

nan lañuy jëlé xol ak kan mo jël xol bi. xool mu ngi ni da ko wat si tane gi. wat ko fi su ñom ma ku gor ki nekkul ku gor ko am jëm ni amul jëm te ñuulul de. yo. até wa ma jigen tu mak ak domam ju jigen ñoo ñoo jël xolam. xam na ñan la mareetu la ak bi gi. waye wa bu jëm ni man ci benn sëriñ laa jëm. mu ñëw defal ñu ñaan ci kër gi soxna Bator bu duggee ci kër gi ñu nekk fi ak jaam ak salaam. yéen da ngeen mënut bàyyi gëm sëriñ yi sëriñ yi bu ñu mënoon dara defal ko seen bopp duñ ci liggéey di ci fayeeku. yow moom sa jàng bee la sonal mais kaay ma xamal la lay de ku fi gëmul xar fa fuufa bés dina ñëw xar fa dina la mës fuuf te nag ma xamal la leen lu ndaw am nañu yàlla may. loolu dëgg la am na ñu yàlla may waaye am na loo xam ne yàlla bokk ko kenn li nar a xew ëllëg loolu exclusivité yàlla la bokk ko kenn man saltige bi dégg naa ko mun sëy la du lii laay waxate ñu naan saltige bu mun sëy la boo demee saltige bi am sax jabar de toute façon aw ma toogaay maa ngi dem te ñoom soo ma fayee ma jënd ko. yow kay waxal li nga bëgg rek loo ma laaj ma jox la ko. nga ne ni ñu tudd. Marietu ak Biége xanaa dégg. Marietu fa Biége. tiñaam seen tiña naa ma Marietu fa Biége. gis seetlu naa boobu ba léegi danga may daw nanguwoo sax di ma xool ci ay bët su ma la xoolee nga sëgg man yow laa am sama sang nga bu ma defee nii damay rus sama kal nga sama kóllëre nga man maa nangu sëy bi li may xaar xam naa ko bu baax te li ngay xalaat maar du mës a am boo tëddee na nga nelaw te xam ne incha kër gii jàmm dina fi jaabante nii rek di mel ne tukkulóoru bëccëg mënuñoo may sax ndox ñu naan. doo tëye sa bi foo dem rek wane fa sa jikko. ndox bala nga maa sosal yow. excusez-moi de baal ma dégg nga. <laughs> dem ci guddi dañoo tuddee woon benn soirée ladies night DJ bi laa doon waxal nii doon ko remercier xam nga rek mooy loolu man moom maa ngi soxla no tóor lool. <laughs> dalee nag jàmm nag fii seen kër la. mettez-vous à l'aise yéen a moom kër gi yéen daal man ngeen lii bu amul duma ma leen gis. ah jot moo amul rek. ah rafetul nag. délai loolu ma seet si. Mhm. yëg nga ne Mariette mooy sa première njëkk. Ah. Mariette. man tax muy nekk sama première njëkk. en tout cas sama yaay daf ma dànkaafu. sama yaay mi ma xam musuma dànkam nañu rafet njort rek su ma sincère sama rakk soxna sincère kër gi du am benn problème est que xam nga ni yow laay may premier njëkk xam naa ko kay. famille bi ni mu bëree nit ak ñun ni ñu bëree ay doomu baay manetu nekk sama premier njëkk loolu mënul nekk c'est impossible. soxna Mariétu li mu defal maar benn doomu baayam defalu ko ko. mais Ngone yow lan la Ngone yow teel nga jéngi de. bul wax loolu. ah man sa mbokk laa te deret dafa fort. dagg la. yu jël njëkk bi joxon la ko yow war nga jox ko sagar mi man moo ma doon gënal li nga wax yépp dëgg la mbokk dara du ko dindi ta mbokk dafa neex waaye gis nga maar famille Mariette lu mu leen defal rek doyul maar <laughs> bi mu amulee dara yi Mariette moo ko daggal bi mu voyagé après bi sam papa gaañoo mu ngi bisi amul dara ci lu mu jàpp papay Mariette financé ko ba tay ji alhamdulilah kon Mariette cër bi moo ko moom cërëm la soxna bu déglu kii mag maag bu la saytaane la yooyu de sagar war ngaa bàyyi loo yëg rek mu siiw salaamin bi tey woo ko de surprise surprise jox sa loxo kii du ma nangu nga ko takk man maa lii moo ci bind ko firiwul doo xam lu ci bind. 6M. 6M. mooy lan. mooy Marietu <laughs> kon de kenn du ko xam lii <laughs> kenn du ko xam <laughs> ah macha allah. この動力様。うんあ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

li ngay bari wax. yow kan ngeex bari wax. yow. daal Alima yow da ngaa nar a jël sa bopp jox ko mu lay dóor guddi di la dóor bëccëg ba kañ ba kañ loolu ba kañ da koy nar a seetaan nii quoi bërki démb boo njaay la la fi dóor dóor yu metti ba nga mujj entrer hôpital pour deux semaines deux semaines nga tëdd ko hôpital ndax ay dóor yu metti yow léegi danga bëgg a dëkk ci loolu mu lay dóor rek ba kañ loolu jeex na yóbbu naa ko police sax damay tas sëy bu ko jaree sax nak mën naa laa jëlal avocat ndax nak daw ca ba ngay ami tank bu deug li ngay def xolat ko bu baax baax parce que tamit mënoo joxe sa bop ñu lay door ba kañ Oke, deh. toog nii. ñëw ñëw toog nii ñëw toog nii kay jege ma. ñëw toog yaay booyam kay jege ma ñëw toog nii ñëw. ñëw bu nga ci siis bi kon jege siis jege siis Marie. yaay. noo def. ça va yaay. yaa ngi si jàmm bu baax. yaa ngi si jàmm alhamdulilah. man de maa la woolu woon tey. Marie bi nga sëy sëy ci biir kër gi. dafa am lu mëna la dénk woon ma ne la maar du range ay yérem du defar néegam nga defar ko ba mu jekk dafa am leneen lu mëna la bëgg ñaanal tey yaay loo ma ñaan ma may la ko jërëjëf Marie ma fekkee ak ma utee bul mës génn kër gi te bul mës bàyyi ma yaay du ma mës génn kër gi te du ma mës a bàyyi maar waaye yaay dara la sa soxna Batoor muy ñëw si kër gi si jàmm ñu nekk tamit si jàmm Marie ma mag mu xamoon naa ko de magum waxoon naa ko la ki yoon du tëb doom ja bët yaay ki yoon nga wax te kii nit la deret dafa foor lool te nit ku ne li nga nàmp moom rek ngay toqamti ko gis ngeen yéen ñaar ni bu leen ma fontoo du ma sama doom fi ma ko wara juuré yar ko fi ma ko war yare ba mag mu di ma defal ma di ko sànni du ma ko def soxna Batoor du sey kat duñ ko bax yaay soxna Batoor xamoo ko yaayam nga xamone te xana xamone nit mën naa bon jur doom mu baax ndax nit yarul de yalla moy yar te gis nga botor bu duggé ci kër gi ba fekk fi marétu gis ni mi seyé par force dina sey dëgg dëgg ngone nit do dugg ci kër fekk ñëpp baax nga bot loolu mënul nekk aha sagar da ngeen di xalé rek bu ngeen xamone lima xam di ngeen noppi bu nga soxna botor yaayam mësta wujé mama mësta wujé képp ku leen bëggoon utal wujju sak nañ la pexé gis nga yaay soxna botor mi ngay wax mbokk la te mbokk alalu yàlla la instant bii nag maar kàddum jiitu na ko ba pare mënatula dellu ginnaaw lenn rek moo mën a nekk mooy nga fekk si ko pour bañ a xaawi suñu sutura famille ndax mbokk lu koy defar dafa gën lu ko yàq de lii daal laa xam ne mën naa la ko wax ci lii mhm. ah kon ba noonu kon yéen ñaar noonu ngeen ko gisee kon baax na waaye bu kenn toog nag ne sama yaay wax ma ko woon gis na mar sama dom la mako ko jur baax gi ne ci mom ak jub gi ne ci mom la foog na mo na ci ñep mag mar loo ko wax mu gëm ko dafa yomb influencer te bu duggé ci jigen ji bon dina ko yàq te kii du tëb doom ji di bëtt ku ñeme na nga taxaw ku ragal na nga daw ba la ngi ñëw dal seen kaw suñu jëkkër ñun la nopp ku mu naqari tu demandes le divorce tu demandes le divorce tu demandes le divorce. <laughs> ñu xoolal xajuñu si benn bu xees waxuma la ak maa waa man damay bëgg waaru wala ay lii ba jàmm la seetaan bige waaru naa ma ne fais attention nag sama bàjjan waxul dara gis nga xaritam yi ñoo nekk di wax lépp te xam fi Sénégal dañ lay wër di la wax di la waxal gis nga bige ki ñuy wër ak ñu koy wër boo xoolee boo xool ñoo nuroo jikko yow bul gaaw a jugé bàyyi loolu jugal nga solo nga ñëw ñu dem ci mariage bi السلام عليكم ورحمة الله. مبكي جلتي نيو لين دي نيو باه دي لين زيارة دي لين بال حق دي لين بال دي نيان يالا يالا يالا بولي بال ممل ني دفا ام لو نيو في داجال تاي موي تاك سي ني نيو كو الاسلام سانتي ني خول ليغا خامتيني تام موم لا نيو تي الاسلام سانت بي تي جيتو mooy ku góor ki nga xamante ni mooy ñaan soxna bëggoon nañu xam ndax am na lu ëpp ñeenti soxna wala benn la am wala mësul am. benn hmm? benn mësul am jabar. mësul am waaw ah, kon kii du ñaari lay doon waaw ah, kon baax na incha allah. kii ñuy takk itam eh, yàlla dogal ñu jox ma cër pour ma maye mayee ko hmm. moom itam mësul am boroom kër. tabaarakallahu kon. ñu jublu ci mbir mi bu defee comme ni ñu ko waxee rek euh, bu ñu mënee am carte d'identité ñi nga xam ne yéenay ñaan ci témoin yi. ak bu soxna li tam waaw ñaar wax ñaari baax na ñaari baax na. ani kaatante ki ki ki ki ki ku góor ku góor ki waaw ku góor ki laa bosom ki ñaan si noo jox kaatante soxna ah, comme charte yi nga xamante ni moo dajale jotaay bi mat na muy ku góor ki jullit la ku jigéen ki jullit la ku jigéen ki am musul am jëkkër

faratu yàlla seen musu Muhammad seen digal yu may jur can yëpp teew na mbooloo mi ngeen seetaloo. alhamdulilah rabbil alamin ñaaree la ma yónni te wàññi ko waruma dama ni damaa ñëw tubaar fakkal la nag dugg nag fi nga xam ne sama jeeg bu baax bi fii la war a dugg ki nu teral fekku kër yaayam tubaari kàlla jox ko junni yu bari añ bii ku ñu ko indil nga xam ne tubaar fa kàlla dan laa nopp sama ñaareel bee bari doole kooku VIP laa ko tuddee dama ni ku jaay téeméeri màgg soo gisee sa maam xam la mu war a jar. loolay man ñaareel laa faral. ñaareel laa àndal. tubaar fakkal la xale bi nga xam ni dañ ko fekk kër yaayam teral ko. ñaareel du sàcc ñaareel siis. ah daanoo xasaw. seen ngeen di musoor. waaw waaw. <laughs> tubaar kontaan naa ci loolu sama waa ji sama waa dama ngi ci gàcce ngi ci. waaye yaay noo def ba dugg. gardien bi moo bëri te du xàmme nag. yaa tiital nga ma waay. tiital naa la nii li yow mu leer na la nag ngay defal lii lu mën lii tax bi nga ñëw woo ma tamit. kon su ma waree ñëw dama la war a woo. Ah, non waaw ma foofu sax mais man à tout moment damay dem tournage wala séminaire. moom nga ñëw dama fekk. waxuma loolu maa ngi ak sa papa ma fi indi. sama ban papa. xanaa Marlo mi la jur ci gànnaaw. yaay wax naa la ba tàyyi bul ma waxati waxu bul ma waxati waxu sa tiit la man yow tamit kañ nga xam ne man du sa morom sa yaay laa Doroko kwa nangoo ba pare dafa am lu ma bëgg a tek sama nawle bi taxaw. bari kal la malay xaar rek nag. boo ma xaaree ma la sama ñaareel. li ngeen bëgg rek lañuy def suñu ñaareel. wa loolu kenn wax ko loolu teraanga sëy ku koy wax ba yegg sama aaw bi tok ku la mandi mo dañuy ko waaye ñu neex rek lañu ñu àndal leen def non la loo leen wax non la. mooy tàngal. Eh, yaatu ci gémmiñ moo gën a neex mooy tàngal. Eh, mooy tàngal. ko nangoo hmm. dañ koy nangu ak plaisir tey sama jeeg ndax nag tubaar fa kaala macha allah sama rakk jaa ngi nii toog ma ni moo di aaw ko bi tey ba tóor yow bi fi la fi rek lañ bi jug ñaareel xaritu jëkkër sama taaw bu jigéen bi toog nee sa ginnaaw bëgg baayam jaadu na mën naa ne laay laay doom bayam da caa dëgër bu koy nampal da koy sama taaw bi si sa yaay ñu na ci yonent hmm. de xam nga ni nga sama yaay sa santé amul benn problème waaye sama rakk ji. Hmm. yaay awa nga dorong bi rog rog gaa awa nga dorong rog. waaye. allo. yow laay lan ngay def sama kër. eh génnal sama kër te nga delloo ma sama caabi. non non xoolal ci sekk dama. laay génnal sama kër yow xanaa sama sëy ak yow jeexul. mais Alima jeexul dama la. munoo ma bàyyi. Alima man dama laa bëgg lan mooy sa problème sama kër la waaye ban caabi waaye bàyyi ngay wax. eh laay génnal fii. eh génnal fii yow. toog sama kër la c'est quoi la la et puis sax yow lan mooy sa problème. man dama de non du ma génn. dafa man damaa defoon erreur man dafa defe ne woon yow ak sa patron daf am lu nekk seen diggante mais dama naa ko ci erreur rek ah, pour man da ngeen séq dara d'ailleurs sax maa ngi dégg ñu ni tey lay takk jabar moo tax ma ñëw sës la. loolu yëpp sa yoon da cee nekkul man dama laa laaj xam nga lan laa bëgg nga génn sama kër laaj yow mënoo ma bàyyi. eh génn sa. génn mu eh, waay génn mu waay. balgalgiramma kanaduma sayai kan mala soma sa kume degal ya, Galang le ay. Ya. Mun wara wax sama ci tebbat. Mais nag dama la ko wax du benn du ñaar waa jooju sant loo man ay waxam la waxul gis nga man yaay ku ma faalewu faalewu ma la kii lu suñu jëkkër ji nag tubaar fa kàlla macha allah jaadu na siro xujo kumba gay del faaloo xujo kumba ku mu nopp ci réew mi nga nangu tey bu bëggandoo woon juróomi xale ñu takkal ko ko riig ko ci kër gi ndax ñun defar rek moo ñu war sama waa ji ñaari junni ci jukkalu añ bi ñaari junni tubaari kàlla macha allah ñeenti junni ci aaw bi jëkkëram nopp gorom assisté ko ak ay njëkkeem tubaari kàlla li ma fi indi jar na fukki junni ba ñaar fukki junni ba un million matériel rek la andi. juróom-benni junni tubaar fa kàlla macha allah. laa la rafet sourire jig jëkkëram xale bi jigéenduwul jëkkëram doo wëyu doo bandi doo fàqman doo agresseur. Sadio bu xamalu ko dara. barki Seydina Mouhamed man lañ la jox ma jàpp sa loxo jox la sa goro. ñu muur la nga sëy si ci kër gi. ñu jox la sa jëkkër nga jox ko deretu yaaram sa goro xëy yëkkati la woom xanaa du yaay jeeg bi eh juróom-ñetti ci sama rakk ci toog ak gorom bi ko bëgg tubaari kàll ci ñaareel bu baax bi kàll ci ñaareel bi jëkkëram nopp maarloo e eh, moo nopp lii ñeenti mètre per la waa joojee sant loo comme ni nga koy waxee yàlla ma ko wan jaxran ma gis ko ci mbooloo oto xuus ci mbooloo mi fir ko ci gént gi ma gis la nga sol lu mel ni yére sapeur pompier di ko wàllu xam naa ne gëmoo ko waaye manal man yàlla am na lu ma may lu ma mës gént gis ko sama gént du ma nax gis nga mbooloo mi ak oto bi musiba la te musiba boobu yow donc yaa ko ci mën a muccal malal loo ween yaay seen sapeur pompier gis nga waajoo ja santuloo comme ni koy waxee bis boo seetaanee ba mu dee ñeent mètre perkal yaa ngi ni maa la ko jàppalee nga lëmas ko ko te jébal ko borom yaay taawam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

laay moo doon agressé alima kañ ngay bàyyi yoon def liggéeyam waaye dinaa dem ci monsieur Lo te dinaa ne ko laay moo doon agressé. non non Assane fa dem di ko dara di yàq réception bi. ay waay surtout laay naan mu bàkke lépp lu ma mën a am yaa ma ko gën a yow soxna Bouta ay waay am na doota waay surtout laay naan mu bàkke lépp lu ma mën a am yaa ma a yow ay waay ay waay nga ma lu ma xamutoon defal nga ma lu ma mënutoon si defe ku doxu ay at ku dox la ko fi sa yàlla day fekk yoon wu sori lool mu tax a ñaar ma ma jëme lool ci folu yàlla du joono am ko tey du sa buur yow waaw jën ko waalo. ci lan. soxna Bator mii. kii wóorul bët di bëgg réer. kii damaa xam ne fa yaayam kañ la gaañu ba ci démb. muy woote lu rëy kii wóor na lañ koy waxee yàlla ma ko wan jaxran ma gis ko ci mbooloo oto xuus ci mbooloo mi fir ko ci gént gi ma gis la nga sol lu mel ne yére sapeur pompier di ko wàllu malal malal looween yaay seen sapeur pompier gis na waajoo ci sant loo comme ni koy waxee bis boo seetaanee ba mu dee ñeenti mètre per kala ngi ni kulo kai wai kulo ni yena jong manyao ai kubu kubu ai kubu ai kubu yei kale bu suwek ba nyo maela baby you walk my blue ba ba ba dai sa rakk ji tey moom dama kontaan danga sañse laa naa la de doo ñëw sax ñu foto nag ma may la bëgg tey sama caat bi ma ak rey la foto bi nga sol rafet na trop mais jàpp la ñi ñëpp mën lañ doon xool baal naa la

taxamani yanga ne ma ma ma mo me ma wow go Ibrahima wallu buya yeni bo baba yeni bo buni du du buni de ye ay Seydi Abdou Karim Mbacké mo lo ko ani man akhla ci ko sa bay koku boni bo Abdoulaye may sawali do yaay falga mo gama li mënoon naa ñàkk nag ah ma dem nag tubaar fakkal la dem ba Dream Cosmétique ah lépp a ngi ci biir dox daje lu fi baax lu ñuy diwoo eh parfum eh Dream Cosmétique la baaxee. waay waay risque juddu wàll ku mu dab day metti <laughs> allo fii eh, nga bal ma sama nawle baal ma baal ma baal ma gis teranga boo ko joxee duñ ko wate ci kanam borom bi moo tax waaw bu ba tey rek bar fakkal ñun teranga dafa dafa dafa suur sunu bët waaye yow sa sa sa grand bu bu gàtt tubaar fakkal la yow moom ana sa géer gi tubaar fakkal eh, bam lay jox gees neer waroon na la ko daggal ba muy wata dama na eh, géewal day defar géew waaye géewal du yàqub géer géewal day defar géew waaye géewal du yàqub géer yaa saytaane gewal dëgg na defal géew yaa ma gën a yaa yaa fi bi seet mel ni ku gewal say gaay la garaama bu kum kaara dafa xew sa baxi baxari yaatu boo kaful boo nooyi bu ko landee say xef na bale duus loo dal yàq ko di xew gis nga say xef yow gis nga say xef soxna si soo mënee lu doon ni sama géwal soxna si ngeen baal ma de mais lii andiwuñu fii tey dañoo ñëw fii pour ndokkale te gis nga soxna mi sama raq la man njëkkeem laa na rafet rek ñu xool nu mu rafetee ñu defa ñu defee ko noonu moo gën xiiroo beeg ŋaayoo bi. mais ni ñooy. nañ yeggale. ah boobu cëkk loo wax. géwél ñoo bokk seen gaño. géwél bi de dafa jugoon pour yàq wante yemale naa ko de. ba sama papa yëgu rek. ci Marlo fu mu koy yëgee ndax du man mii maa ko koy wax. السلام عليكم السلام dafa mel ni sama dugub laa dégg dafa am lu ma war a yëg te yëguma ko wala ah Bigué man ñu amul ah dafa am lu ma war a yëg te yëguma ko wala ah loolu waxtaanu jigéen rek أم الصلاة soxna Bada. noo def. merci noo def. mbaa nelaw nga bu baax rek. alhamdulilah. nelaw naa bu baax sax yow tamit sama première nuit ci sama kër jëkkër enfin madame Lo damay nelaw ba yàndoor ah kon nañu wax alhamdulilah rabbil alamin ah, ne lii lan ko jox njëkk bi ah. sa aawa ah, def na lu rafet waaye ma ko ma xool ok ah ñu allah kii de daa mel ni ab diw la. diw la allah macha allah mais nag ma xoolee bu baax Marietou daf laa sas de xam nga lii mooy lan. mooy nag nga gaaw am doom comme ça nag yow ak sa doom ngeen gérer ko. xam nga loolu laa bëgg. Ah. damaa bëgg gaaw am doom. sas na la de. moom bu yeboo moom nga gaaw ci rek. Ah, ma xoolal sama téléphone ba xam nekkul foofu. téléphone ah ok ok mu ngi nii. ah gis nga ko. ok mu ngi noonu. ah, ah vraiment lii moom. ok woo ma sax. mbaa remercier nga ko rek. waaw bien. eh. la li mu doon. comment dañ maa bëgg génn kër gi waaye yow fi daf sa kër fi am foo eh eh foo eh, eh damay dem wax ak marié ko kon man su ma comprendre bu baax sànq bi may dugg ci salon bi fekk leen ñoom ñaar ñuy waxtaan mareetu ak biige kon lii lañ ma doon nëbbu d'accord. fi daw si. Eh, eh, kan? sonn bàyyi ma dem wax ak mareetu parce que man lii du ma ko waa toogal xëti yow soo demee wax ak ñoom ñu gaafal ma ne man damaa ñëw rekk problème yi commencé am ci kër gi lan la mais lii lii lii mystique la rekk man miin naa ko amul benn problème man jigéen laa te dinaa ko gérer yow génn ci shit. man papa xanaa lo mi la jur ci geño lo wen yaay sen sapeur pompier gis na comme ni koy bis boo seetaanee ba mu dee ñeent mètre maa la ko jàppalee nga lëmas ko ko te jébal ko borom 跟谁？ bige lay seet yow xamuma mais sa papa xam na ma bu baax Cap Skirring bu ma ko dégg ci kër gi su ma ko fi déggee dinaa xam ne yow la te su boobaa du baax ci yow bu ma dégg sa wax boole gerte moom nag yaay kii yoroo ko de ki dafa trop. yaay sëy de yeeg day baax. nga def di dina de foofa <laughs> de Marie. dëgg la sa moo gënoon sañ si xew bi xoolal la. waxal yéen ñaar ñëpp rafet. Ah. waxal rek kenn mer non non yéen ñaar ñëpp rafet daal. ah dégg kenn mer moom jox ma sama yaay yaay attañu te yàlla rek tax na. waxal rek ah, yaay. ah macha allah vraiment neex ba neexul nag. waaye sagar. Hmm. fa yu ngoonee la ci dàq de. yaay la lay fàtt. cëg cëg cëg cëg cëg cëg ay muy. cëg cëg cëg cëg cëg. déedéet seen loxo seen loxo ca kaw. eh def eh, ni bu ko sippee kii dafay rey. xool leen xale yu ndaw yaay maam am na woon baax bu bees bi ma la doon wax ñëwoo si mariage bi nag waaye sa bopp dangaa sikk kii mooy sa jabaru pap bu bees bi ma doon wax Ya not mungkin ini innocent ke? Wow, sama bàjjan la. Simon lan la doon xew kamu. nga ko xam. garaaw comme que sa Wah itu man tidak ada. bàyyi ma rek. Lalla dafa am lu xew. garaaw maa ngi dem. yéen xam ngeen ki ngeen indi seen kër yéen xam ngeen ki ngeen indi seen kër. yow man dama laa wóolu. des na yeneen sax. lan lii nga yor bu la jàppee na. <laughs> aywa ñoo ko daloon na. <laughs> war ngeen a jàngiwaat ay pexe nag de lii du dara fabrication kese la liggéeyu soxna ba toor na doo ma sama téléphone ba xam ne foofu ah, ngi nii ah gis ah, kenn du man caam loo si ma ca ndaa man mii doy foofu ñaareel laa lay tegal non sa yëf la de yow xanaa xamoon soo màggee yow laa bëgg a dégg ko. ndax yow da ngaa dégg. te nag ñaari nit suñu bokkee ndaw. Mhm. kenn ki daw ak moom. ka ci des naa ko naree sa jàmm. ay ay naxaate la de. <laughs> tey su say bii naxoo ko de. dëgg koo ñàkk ba mu dëgg. man kii laay war. Eh, kii laay war man yow laay war. pour mhm. ma keneen yow laay war. waaw yow laay war benn. yow moom ngay war waaye man man lii laay lijjanti lii lu ciy sa baxee. xanaa jaxase. dugg naa ci kër gi. Mhm. dinaa nangu alaaji bi. ba pare jël kër gi. coo coo coo. te jàppoo ko ne fi mu nii fexe la yow nga dugg dindi stress teg ko fee kër ga am jàmm ngeen xam fi xoolal di zëlle di def la leen sax parce que bëgg koo dundee nii yërëm naa la yërëm ña nga dëkk. déggal dof bi. wérut yow wéroo de. am nga loo dal. Mm-hmm. mais yow xanaa xam nga ne wëjjee gertewaat la. Mm-hmm. defante baangi ci souf mhm. man duma xaar benn jeeg di dal sa sama kaw may jug di fay oh, adédéet ah, coo man do sire ma ci ndam dama yew rek ci ma xaar ken dal sama kaw ma xam ngeen dara mhm. ki dama ko bëgg man mhm. xam tax mu bëgg ko ken sama xarit bi sama xarit be ba ba pare dafa sarit boolu dara alalam du ko boole kenn xanaa du kii mooy mërëb loo ñaareel pare dama koo bëgg man dama koy wër. duma ay fo. waxtaan bi neex na nag mais xiif naa de. lan la ñuy añee tey. ndax yàlla tey man maay paye añ bi. loo bëgg lu am. lu bëgg ma maa gën a oyof taal. ah maa ngi nañ añ ji daf tey damaa rëcc. maa ngi ne sama jëkkër dafa génn rek. kon kii mooy ñaare bu pare. mos na pare koo nekk sama xarit bii dooy fo. yow da ngay nelaw. ah booy jikko defante ah booy jikko de boo xamante ni laa xamee na neex juróomi ju nengoo na añ bi neex ak nga ko yaa bi la bi na neex waa ko bi hmm? moom animu nee na kër sëriñam la dem sëñ bi man dama jaaxle te yow umpale woon ni man saa suma jaaxle rek ci yow lay ñëw dama la bëggoon laaj nag comme deme ne nii lan laa war a def. alhamdulilah rabbil alamin ndox ginnaaw bu yàlla dogalee nga am jàqare ñëw ci man du benn du ñaar du ñett sant yàlla la ginnaaw danga maa laaj nooy def maar da xam ne loo doon doon ndaw kilifa nga ndax yàlla dénk na la ñaari soxna kon nel tekk da ngay soo ne tekk tekk dana la woon yoon wala tekk woon yoon ba noppi nag nga mën a toog ci sa teeg bopp settantal bu baax li nga war a def xool bu baax na nga war a toog soo ko defee di nga am ndam un rêve de crème. Pau Pau illumine chaque jour votre peau et vous aide à préserver un teint plus unifié. Pour l'éclat de mon teint, je suis 100% Caro White. Unifie et illumine votre peau.